yi ñu ngi sant yàlla ci kàntanam ci coobareem di ko gërëm ndax ku fi toog fii tey ameen la yàlla sant ndax diggante daaw ak ren seq na lool yàlla def na fi lu rey na fi teral na fi teddil na fi kon ku mu sàmm daaw teral la ba nga fa toogoon daaw nga toogaat ba am nañu yàlla cant ñu santaat ko ñaanaat ko ci yërmandeem ci barke borom bërëb bii mu gunge waa ñu ba mu toogaat ci déwén ak suñu xalifa bu tedd bi ma salika allah bi asi suñu war a yàlla yàlla yàlla mu góor ñi ak mu jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kilifa yi fi daje ginnaaw nuyoo boo xam ne bu barkeel nee mu ngi leen xam mu ngi leen xamal ne tey jii de toog nañu ci kanam ak sang ba ñu wax Seydina Isa Ruuhullah ibn Maryam jàmbaar ja ka nga xamee ni yóbbu nañu ko fu nekk woo nañu ko fa waaye foo mos a mu bu ñu fa gisee rek jëmmam ji daal leen doy ba dootuñu ko mën a wax ak moom ci dara ñëw fi nag tey jii fi ubbee. téeméeri ak ak fukk ak juróom-ñett ci woote Seydina Limaamul Mahdi ñu leen xamal nag ne man murid ñu lan danañu téye te ak yéen tey ak seen am-am bi nga xam ne moom la ñu ni ma amee solo mu ne su def sëy su bëri su màgg ci lislaam lan moo ko tax a màgg ci lislaam min rusuli ila rusuli dañoo jóge ci ku yàlla yónni ñëw ci ku yàlla yónni waat ndax ñu nga jóge yoof ci sayidna limaaw mi nga xam ni moo wax ni wa qaala annaamu sunni ila kafaatil xalq ñëw ci sayidna isa mi nga xam ni ñoo waxoon ni la mahadiyan ila isa <coughs> kon ñëw nañu si ñaari fi ñëw nag ñu ubbee si yi xam ne suñu boroom moo leen teral te yàlla kan nee na ko tedd maa la teral ngir moo ne wala karam naa bani adam moo teral lan moo ak moom la yàlla teralee bànne aadama moo di da ngay gis rab boo xam ne day raam gis rab buy yow nag nit ki da ngay sol say dàll sol say mbubb booy lekk moo tax mu ne wala xat karam naa bani adama ñeen day suwal na jàmm ni naa leen ngir am naa ñoo xam ni fu ñu jëm dañuy watatu leen mais ma teral leen nag ci yëg ji ak yéer yi woor ab jaam nag ñu jaamu yàlla ci sant ko te ndax boo jaamoo yàlla sant ko باهنا شوكو مثل باهنا لأن أنا كأنه يرعو فإن لم يكن يرعو فإنه يرعو يوم بين من يجيس سنكم من يجيس من يعلم من يجيس كلا يجيس مكتما نوكو بيس تأمين أكد من يفوف من الأمن من يتيم لا يقمني شكو واتشو وانشو فلنفا يقو تمنى بسيجي لن يقوك بيدي لن يلا جامك ورلا يزور زور سي جامك سيدنا عيسانك Thank you. bokkoon na ci li gën a rafetal ci rafetal ci mbooloo yi ndax nan arkaan ak masalik sabaati yawm al-eid am na ñenn su def kori soo xam ni lam yaxrum li salaati shay'un xayrahu am na su def kori soo xam ni benn firnd yëmmul ñu ngi kori ngir ab taw waaye ne seen Aïcha ni képp ñoo génn ci bés booba jëm ci julli kay da ñu ne axsan siyaab yi ak gën jaar bi ci mbuum yamu daa mën a rafetal yooyu la sol kuur ca taw ba jiite mbooloo ma nee na bés boobu kenn mënu caa génn ngir taw ak ngalaw ak yëngu moo tax kenn ñëwul génn waaye ñoom génnoon nañ seen ay sa ak xob da moomu ne xuus ca taw ba ngelaw la jullee mbooloo julleel mbooloo ma kon ca waaye kon mu توبة ودعي وذلك المتابع لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم مطرا لا يكون من بيتا وجرى على أن أنا التو باب منا ما بصح بدون تبع حبا وأن أنا التو دفن يوم فرع الصوف سيدنا عيسى أنك جنة توبة ولا مام عندك من يرفع يا أبكار من يرفع جيسا بولا من منكم keroog lekkul naanuñ ngir yërëm nit ñi ca ndox ma waaye nee na mu jiite leen nag ba ñu noppee mu ne leen taw booba amoon démb ci jamonoy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te andi fa sutu ña ko doon woon tooy sa ñoom la yàlla tële bu tuddaleen wala xam karam naa bànni adama mu ne loola may booba defal nañu leen ko kon fii mu tawtee tey ngir yéen man Seydina Isa ibnu Seydina Imaamu Laay maa ngi ñaan suma borom ñu wàcc fi xéewal boo xam ne fii rek la koy wàcc bu ko bëgg ci xéewal googu il faut mu fekk ngeen fi dafa naa loolu dëggu na ku bëgg ci xéewal yi il faut nga agsi fii ku bëgg ci xéewal yi il faut nga agsi fii mu ne nag loolu amoon dem ci Muhammad te yàlla amuñ ko ko moom defe na ko mu mu barkeel fii wala waaye soxlaa bi ci lu la gënal nga fekk ci kaf yi ah mu ne yàlla dañu ci ubbil nag te taw boobu mu taw te mu ne miftax il kunus al mawjudat dañu ci ubbil mbindeef yi koom-koom ak am-am yoo xam ni fooguñu ko woon mais suy naa nag wa min ahsani sayyidina Isa ilal muctamil basari nee na ku baaxoon la ku amoon daraja la ku am la waaye ku suufee loon boppam la ngir yàlla ba nee na sax toogaayam ñaare doo ko fekk mu toog ci kaw mukk foo ko fekk mu nga toog ci suuf ñu ne sayyidina Isa nag moomu mas xaalis joxe ngir boobu nit ñi dañoo bëgg a sangoor ni nga daa dégg mu ci réew waaye boobu nag ñu ko am di jafe nee na booba semence mu nga France pour ñu ñëw nag fii xëy na ISRA moo financé pour mi. ñu ne xëy na ISRA nag nee na wa bi daraam alal uda mu ne nag li mu mujj wax ba muy bëgg a génn adduna ñun xëy na ISRA ndax ba nga xamee ni mu ngay foog jëm fii moo tax ah kenn ku ne war ngaa góorgóorlu xam ne bés boo bëgg ñu ñëw. لا فإذا كانت الدنيا تدوم لوائد وكان الرسول الله أيام محل سيكون لأبنا فأركم يوسف قم يبقى قم يلتبه في يوم سيدني كفي جلي مولا كنا بلا ما عدنا عني فابو وقتان من يقول لما سيسلوان بل بسم الله سلوان وقتان من يوم نلن فابونا ويجسنا بسوا بايين يمتيون te na nga mën a yàq ñu nañu la ndax bu daal taxaw nañu fi des kon nag maa ngi fabu waaye nag maa di yëngu aussi comme ni dawaan alal huda maa ngi bëgg a dem waaye maa ngi di dégg ngeen wa taqwa laay affaire te ngeen ragal yàlla loolu la ngeen sànni bu amal na xayma te ngeen def lu baax su ngeen bëggee seen baax di wax lu baax ne loolu ci àdduna génn àdduna kon adaakumullahu amin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu foofu laa yemale waxtaan wi di leen sant li ñaan yàlla nañu ñu gungoogaat ci musul ñu ci feebar yeeg ñàkk geeg yëf yëpp la musul ñu ci ba ñu toogaat ci jërëm ana saliku bi ala wa sallam allahuma salli ala Sayyidu Ibrahima ngi sant itam. nee mu ngi sant itam. sant gu rëy. sant gu rëy. sant gu rëy. nee sant gu rëy. gu amul dayoo. sant gu amul dayoo. amul fu mu yem. amul fu mu yem. màgg na ba kenn mënu kaa. nee màgg na ba kenn mënu kaa. seen seen. xóot na ba kenn mënu. xóot na ba kenn mënu kaa dab ci biir. yaa na ba kenn mënu. yaa na ba kenn mënu kaa lamb. mu di ma sant yàlla. mu sant yàlla. sant samay rakk. sant ay rakkam yu tedd yii toog kër sant rakk ji nga xam ne sant nag rakk ji nga xam ni. dafa sëñ rëkk ci ma dafa sëñ rëkk rëkk rëkk Seydou Mamadou Sall laay. rëkk googu nag. nee rëkk googu nag. dafa yàggoon dafa yàgg de. bàyyam bii muy wax. nee bàyyam bii muy wax di yoon si yàlla Isaa ibnu Mariama. bàyyam bii muy wax bàyyam bii muy wax. tëdd fii. tëdd fii ni jaloog moom. nekkoon na koo xam ne kii. nee nekkoon na koo xam ne kii. kenn mënu koo jigéen. kenn mënu kaa jigéen. tey ko nekk di wax. mais tey la nag la kenn nekk di wax. waaye. waaye am nay jamono day. am ne kaay wuyu ko. ku ñu ne kaay wuyu Baye Seydina. sam xel daal. sam xel day. ci àdduna. sam dina ba tax na. ba tax na. moom boromam doyoon na ko. moom boromam doyoon na ko. ci fegu. ci fegu. bi mu fi dëddee nag. bi mu fi dëddee. mu bàyyi fi rek mu bàyyi fi rek ju baax ndax ju baax du ko gërëm du ko gërëm mu gë moo gërëm rakka ja moo gërëm rakka ja ngërëm lu rëy ngërëm lu rëy bi rakka ji toogee bi rakka ji toogee mu woo doom ji woo doom ji tedd ji toog ne kaay topp ci man ni ko kaay topp ci man nekkal sama loxo nekkal sama loxo. nekkal sama lépp nekkal samay bët samay sama tànk. moo waral li tubaab bi tuddee. looloo waral li tubaab bi tuddee. porte parole porte mu nekk ko mu nekkoon ko moom Seydi Abdoulaye ci bàyyam bu baax ba. ndax bàyyam bii. na ne bàyyam bii. kenn mënu koon a jege. kenn mënu koon a jege. du doom du doom. waxtuma laa rek waxtuma laa rek. ne xam na diggante Sey Baye Seydina Issa Rouhou. ku ne xamoon na diggante Baye Seydina Issa Rouhou Laye. ak Baye Mandione. ak Baye moy rakam moy rakam mu top ko ñeen fukki at top ko ñeen fukki at musul am kër musul am kër musul am dara musul am dara bu ande ak mom bu ande ak mom am bo sama yor am bo sama yor ñaari mu bacce ne ñaari mu bacce ne la ay téré la seen ay téré lu sol sax dal lu sol sax dal ba ñeen fukki at ba ñeen fukki at yi mat mu jeexal mu jeexal ci aduna ci aduna xol gisatul dara gisatul dara xoolatul dara gisatul dara mu door nag mu door nag woo doomam woo doomam ju baax ji togal sama lep ma di gis may gis may dégg may dégg may xool may xool ngay jëf ngay jëf ndax loolu moo war mais loolu kii kii bàyyi ma njool mooy léppam mais bàyyi ma njool moo doon léppam tekk dénkoon kii ku ma ko dénkoon di bàyyam ba seen ay saru lay bon mais kon lu ci kër gi lu rafet ci kër gi moom moom mii la bon war naa ko gërëm tey kon tey man Seydou Mamadou Alassane Laye war naa ko gërëm tey. gërëm tey bii. bisub tey bii. li ma wax du bari. li ma wax du bari. ay rakkaama ngi nii toog ay rakkaama ngi nii toog Seydou Mamadou Alassane Laye ñi ko war du ma leen jàngal du ma leen jàngal. Chérif Chérif ak Amadou Makhtar ak Amadou Makhtar ak Niass Edef ak Niass Edef. wante Abdoulaye. waaye Abdoulaye. ci kër gi ci Cambérène. ci kër gi ci Cambérène. ab tabax nga ca Wanaba. ab tabax nga ca Wanaba. bàyyeem ma njoon bàyyeem ma njoon laay mu baax ma. ko defaloon moo ko ma defaloon. may ko soxna may ko soxna. ubbil ko bunt ubbil ko bunt. ci wetu tabax bu nag ci wetu tabaxu nag bi. ci li ma leen ne. ci li ma leen ni. bàyyeem dakaa doy. bàyyeem dakaa doyloo woon. ni ko nag ni ko nag. sama gémmañ sama gémmañ. sa nopp sa nopp. sa tànk sa tànk. oto baa ngi oto baa ngi sofër baa ngi sofër baa ngi. wallaahi. mu nekkee loola. mu nekkee woon loola moom Seydi Abdoulaye. di gor di gor su mat sëg di ko soxlu bari di ko soxlu bari tey yii tey yii ba mënu kaa yàbb ba mënu kaa yàbb biiram yi nëpp biiram bi nëpp waaye yàlla am na pay waaye nag yàlla am na pay moom nag bu may ñaan kon man bu may ñaan moo rakam yii rakam yii ba mu toogaat tey jii ba mu toogaat tey jii yàlla toogaat déwén yàlla toogaat déwén. Chérif Chérif. uufu uufu ñi si des ñi des topp ci topp ci. amiin yaa rabbal aalamiin amiin te yaakaar naa ne. te yaakaar naa ne tey. ñii ñii. lu ma leen ñaan ma leen ñaanal. yàlla dina ma ko may yàlla yàlla dina ma ko may. ndax lu tax ndax lu tax. seeni baay seeni baay. ñoo ma jur ñoo ma jur. kenn ku ne kenn ku ne. sa baay sa baay. ndi jaay la si man ndi jaay la si man yére yi yére yi maa ko war a man mii maa ko war a sol. mu teg kay defit kii ngay defit di kii di ko defal kii di ma ko defal di ma ko defal di ma ko defal. dama koy defal ngir kii dama koy defal ngir kii. moom sëñ Abo Seynou Laye. damay sàng ngir kii damay li ngeen xam ne ngeen ngeen ni. seen bàyyi seen bàyyi sama nijaay waaye sëñ Abdoulaye waaye sëñ Abdoulaye yàlla mu gudd fa yàlla mu gudd fa wér lay ñaanal wér rek laa lay ñaanal sama xol sedd na eh, sama xol sedd na guy ci yaw ci yow moo tax may fàttali nit moo tax may na bàyyam moo ma yar bàyyam tudd ñii dëkk moo jël àll ba moo jël àll ba ak daa ak daa ak xalima ak xalima mu bindal ma bis bismillahi rahmani rahim dalal ma alquran dalal ma alquran moo ma jàngal alquran bay sina isaar wallahi moo ma jàngal alquran ba noppi nag ba noppi mu jël ma mu jël ma yar ma ci këram yar ma ci këram yar na ma nag yar na ma nag waaye nekkuma ci biir kër waaye nekkuma ci biir kër ga waaye mel na maa ngi waaye mel na ne maa ngi ci maa ngi ci biir ndax maa ngi ci biir di déglu ba di déglu baatam ñëwal dem ñëwal dem ñëwal toog ñëwal toog nangam defal nangam ba léegi bàyyi nangam ba léegi bon nag kon nag su ma fi yàlla bàyyee su ma fi yàlla bàyyee te benn jëmm te benn jëmm ci adduna ci adduna bii su laa xalaat musu laa xalaat mos monsieur Mamadou Sane Laye nee toog fii ci kër Seydina Limaamu Laye jiite leen kenn musu kaa xalaat ndax damaa ma sa ñaan yàlla. ndax damaa ma sa ñaan yàlla. lépp lu leen nar a. lépp lu leen dal nar a dal. yàlla sunu borom yàlla sunu borom. teg ma ko teg ma ko. jërëjëf. ñaan naa sama aajo. ñaan naa sama aajo ba noppi. ne borom bi ne borom bi. yaa ma bind de yaa ma bind de. kenn mënu ma dara. kenn mënu ma dara rek. udul yow udul yow. yëg maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan sa kattan sa kattan sañ sañ sañ sañ ñii ñii bu ñu feebar bu ñu feebar dara dal bu leen dara dal nu ma dal yàlla bu fi seytaane yàlla bu fi seytaane dugg su fi duggee bu fi duggee ñu jéemuta ñu jéemuta am artif wax ne artif wax nañu rey nañu rey nit bu ko defee ñu juboo yàlla yóbbu ma yàlla yi nam nga yóbbu te looloo nekk ci moom ba looloo ci moom ba léegi ginnaaw loolu nag ñee ginnaaw loolu ma yedd sama bopp ma yedd bo sama bopp di yedd bokki taalibe yedd bokki taalibe yi diine ji diine ji tey la kenn ku ne di wax mais tey la kenn ku ne di wax am na lislaam fi mel yoo xam ne am na gis naa fi mel yoo xam ne yii nag te fii nu toog fii nu toog du turbine du turbine du penc du penc budd àllaaxira lam àllaaxira lam toog nit ko yàlla meloon nit ko yàlla meloon man maa ci xam dara. man maa ci xam dara. man Maam Mor Sarr. man Seydou Maam Mor Sarr Mbaye. ndax bés bu xëyee. ndax bés bu xëyee. ay kanam lay ne. ay kanam lay ne. day xees. day xees. bu ëllëgee. bu ëllëgee. mel neneen mu mel neneen. mu mel neneen ëllëg mu mel neneen. ci yëngu yàlla te kon boo ko fekk guddi. kon boo ko fekk guddi. sa morom fekk sa morom fekk na ko feneen. mën nañ tëdd waay guddi am na borom mën nañ tëdd waay guddi am na borom. nga dem ci beneen nga dem ci beneen koñ fekk ko ya sax loolu lay sax mën naa la ko wax waxoon naa la ko wax dëndi dama dëndi di am dal mënu ko jaar fekk semaine bu set fekk almaan bu set foo dox rek foo dox rek da ngay bàyyi dina jaru la daa doon ko xool ba mu yàgg ko xool ba yàgg mu defee du nit defee du nit ndax bu du ma te mosaan tere ndax bu du mosaan tere géej ñu dem géej ñu dem géej mu topp ci tund yi mu topp ci tund yi ba kenn ne ah kenn ne ah kaale gu yàgg kaale gu yàgg gën a seen de loolu ñu léegi sanga ba sanga ba lay ñëw waaye lu nu gaaw waaye lu nu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw ñuy sumee dàllam mu tuba wala mu tuba ci suuf su tooy suuf su tooy si sànninu sànninu kenn ku kenn ku ne laa ilaaha illaa huwa baqara min baqara min jinni kenn ku ne bu ndee ñaar fukk bu ndee ñaar fukk kenn ku ne dinga ne fa muy dal morom fa muy dal morom du bokk ak fa muy dal morom kenn ku ne saal bi nga dal benn saal mun nag kon nag ñu ngi koy bëgg a jëmeñ ñu ngi koy bëgg a naa ci jox léegi fii seet naa léegi fii diine ji diine ji ñu ngi bëgg a a ñemeñ jëmm ji jëmm ji tëdd billaahi nelaw billaahi nelawul wala kambare wana kambaren ca perong ba ca perong ba man moom dëkk yéen dëkk bi yaa moom yaa moom jàkka ji Malick moom dëkk bi ma ne ma ne sang bi sang bi ngi dox de ñu ngi dox de guddi fu ñu guddi jàngal naa leen ko naa leen ko. ne leen ne leen. ne leen bu leen gëtt rombe. bu leen gëtt rombe. gëtt gu neex gëtt gu neex. bàyyi Seydina bàyyi Seydina la. fu làmp nekkul. fu làmp newul. mu leer mu leer. tuuti tuuti dem. moo fa jaar moo fa jaar. billaahi ngi billaahi ngi nii jël moom. ku mel nii. mu nekkee ci wàllu yàlla dafay nekk ci wetam. wala lu jëm si wala lu jëm si fii. nanu yaru nanu yaru. nanu dellu suñu bopp nanu dellu suñu bopp ci jaamu yàlla. ci jaamu yàlla. تنبوح نقولي ولا قد كرمنا بني آدم كرمنا بني آدم بلا يجي أخ بلا يجي أخ لو شكران لو شكران لو جوجي نيالا كان من الخير تبي مسلم مبارك مسلم مبارك جاجر جاجر جاجر جاجر رك الإيمان بالقلب الإيمان بالقلب النطق باللسان النطق باللسان الأمن بالجوارح بدل ما نستجب ما نعجب يلم في جب جب يلم في جب جب عبد الله خلقك خلبان لك مم ما نجوا ما نجوا ñu yéemu ci ñu yéemu ci xaj nekkul ci xol fekkal ñu nekkul ci xol lépp a ngi ci lépp a ngi ci biir xol bi nañu defar xol yi te béréb bii te béréb bii uh-huh. li ma jot yi ndigal ji ndigal billahi bari billahi bari na uh-huh. jëmm ji di waxtaan ma ji toog waxtaan naa kaa moom sëñ naa ba sëñ bi laay mu fekk fekk si ko uh-huh. <coughs> ma ne comme si gën a ñaawee sëñ nag yow laa ko war a wax yow laa ko war a wax ndax yaay Abdoulaye ndax yaay Abdoulaye waaye sama baay bi sama baay nee na ñu ko dimbali ñu ko dimbali urumam bi urumam bi du urumoo àdduna urumoo àdduna urumoo urumoo xaa kay bu àdduna bu àdduna la naam ndax ñu ngi ci àdduna ndax ñu ngi ci àdduna waaye li ñu fi war a waaye li ñu fi war a def moo di torox mooy toroxlu ñaan ñaan jàmm ak salaam jàmm ak salaam bu caa xéwal bu caa xéwal dem sunu yoon dem sunu yoon te bu ñu fi ñëw bu ñu fi ñëw mu xam mu xam teggin yi fi ñu jëm teggin yi ni war a làmboo jëm ndax ba su ma saan dem yoo saa dem yoo xëy suba xëy suba ànd ak man ànd ak man dem jàmm dem jàmm yaay bu bu bëgg bu yow bu butu ko rek butu ko rek ba rek fu mbir ne ko mu mag wam ci mu muram mu mag dal dal sa programme bu ci bunta bayam ci bunta bayam bi ko dug mu mu ko ko dug wallahi non la bay jang ni la ko wax na ko wax te loolu la daan def noonu la daan def danaan sumi bu baax sumi bu bam ci bunte bi ci bunte bi bu duggee bu duggee raam uti ba raam uti ba ut bàyyam sallallahu alayhi te léegi te léegi nag ay wax ay wax lu ne lu ne nga ñu def ci xam-xam yi lu ne nañ ko moytu nañ ko moytu loolu dëgg léegi bi nu ñëw léegi bi nu ñëw bëgg a toog bëgg a toog coow bari na lool coow li bari na lool waaye dafa ne jàppal fii dafa ne dafa ne dama perkal perkal fu mu jot du fu mu doog toog borom toog bopp borom toog fo du fu mu dekk rek fu mu ne rek mu toog si mu toog ci dama ne dama ne bàyyi lay da leen tudd bàyyi lay dañu tudd ay saaba ay saaba waxu leen taalu bi waxu leen ay taalu bi ay saaba la ay saaba la bàyyi lay wax ndax mooy xayru moom ndax mooy xayru xalku laay wallahi sëy naa limaam lay ma xayru jii tëdd jëmm jii tëdd julli na tuur suba julli na suba ci caaree géej jaaree géej jëm ci jàkka ji ñu ngi jàkka ji ñëw ci buntu ñëw ci buntu baraag bi sol man mu sol palmaan. mu doon sol sol palmaan. turki njaareem turki njaareem. bu weex bu weex. melokaanam wu tedd wa melokaanam wu tedd wa. mu ne caare yi mu ne caare yi. adduna adduna. ku doon seet ku doon seet. yoon teel a yoon teel a yàlla maa ngi maa ngi. adduna. adduna. ku doon seet ku doon seet. yoon teel a yoon teel a yàlla maa ngi ma ne maa ngi ni taxaw. ñetti yoon ñetti yoon. انا خلاص اللي خلاص خمس شهور خمس وضعي فايدو امره لا يزعب بل فايدو لك فايدو كنا مبقى ما بقى كنا في جواتيه كنا في جواتيه غير بس لا لا بسب الله يزوق على الله يرحمني دفتيتلون دفتيتلون عدنا بسبوري بسبوري سنبي سنبي تو تو سخم خم خم خم المانو جن سلم سلم للكوبي للكوبي كتاب كتاب كتاب لا ما يبون كتاب لا ما يبون كتاب ما يبون كتاب ما يبون كتاب moom bu ñu fi ñëwee. kon bu ñu fi ñëwee. war nañu fa yoroo sa ndànk. war nañu yoroo sa ndànk. yar ab yar bu mat sëkk. teg ñu mat sëkk. ndax ndax. ñu te ñuy dox. ñu te ñuy dox. léegi tey. léegi tey jii. ci waxuñu wala ci waxuñu wala. tegal ay dàll yu bari. tegal ay dàll yu bari. ci bunt ci bunt. léegi gis ku réew. léegi gis ku réew. ku réew bu ñëwee. ku réew bu ñëwee. dàll yi jaxasoo. dàll yi jaxasoo yëpp. ndax ñu ngi seet aw dàllam rek. déedéet bu ngeen seetu ab dàll la ñu ne ku réew ku réew bu ñëwee ci bunt bu ñëwee ci bunt wala buntu néeg buntu néeg ay daal nekk ay daal nekk ko seet ko seet ko bu ñëwee bu ñëwee du xam dama réew ba du gis dafa réew ba du gis dàll ka yaay tànk yaay ko doon la dàll yépp mais ñuy dugg ci biir néeg bi waaye nga yaru ci biir waaye nga yaru boo ñëwee fekk dama nekk ko daal di yaru bu beew nu mu mel dama bàyyi ma jàngaloon loolu te Baye Laye nee na. Baye Laye nee na. te yàlla yóbbu àll. te yàlla yóbbu àllaaxira. gisul ku réew kat ku réew de. man mii wax ak yéen. man mii wax ak yéen. taalibe dong la taalibe dong la. dama ñaan wer dama ñaan wer bi yëpp. soo bàyyi ñu may. ma bàyyi may ma wer. ñii itam ñii itam kasaalika. ñun waajal àllaaxira. suñuy waru noo. waru nuy. waru noo. waru noo. mel melakaan mel melakaan yoo xam ni bu duggee suuf bu duggee ci suuf mu jëpp mu jëpp incha allah musal ñu delloo sunu bopp ñu delloo waat sunu bopp yàlla ci yàlla gërëb bu ñu ñëw gërëb bu ñu ñëw gërëb gaay yàlla yi gërëb gaay yàlla yi ñu xam ne ñu xam ni dañuy tëdd dañuy tëdd noonu de yàlla bi wax na bi wax na ko léegi am ci kon ku yàlla am ci kon ku yàlla yi rus muy xeeru xal muy xeeru xal ko lay bu di kàmbareen nga fii di kàmbareen nga fii kenn bëggatul dara kenn bëggatul dara kenn du ko kon nga xam ne bis bii nag mu tànn mu tànn ca dagam ca magam ba fii nu toog ba fii nu toog yàlla ko yàgg def yàlla ko yàgg def barke bàyyi lay barke bàyyi lay ak seydi war na seen ama njoom bàyyi bàyyi baax ba xaritam ba ñu xam ne bis bii ñu xam ne bis bii bisu bisu tiit la woon bisu tiit la woon jëmm ñu gunéet jëmm ju ne bëri jëmm ju ne bëri génnam néegam ci génnam néegam dem ca tunde ya dem ca tunde ya lamb lu weex lamb lu weex wax ne wax ni ajiboo daay yàllaahi amul ñett yoon amul ñett yoon. wër bu sow. ndijoor càmmoñ wax ko. delluwaat delluwaat. ajiboo ajiboo. daa yàllaay inni rasulullahi ilaykum yaa masal nit wal jinni wal jinni inni rasulullahi ilaykum. ñu bisu tey bii rek a tegaat. adduna berset gémmeñ ñu waay. kon kuy ñëw fii. ànd ak ñu tedd ñii. ñii. waaye gis nga ni ñu mel. ñu ngi lay yokk ñu ngi lay yokk rek waaye nun nag ñu taalibe yi nag ñu bëgg leen a fitna bëgg leen a di wax. dëggatu yonent yàlla Isa. dëggatu yonent yàlla Isa. ak Seydina Muhammad ak Seydina Muhammad ma ne bu ñuy toog bët bu nekk bët bu nekk war a xool ne war a xool ci ñoom ci ñoom ci melo ak leneen le seen bàyyi meloon seen maam waxoon seen maam waxoon looy leen ci man looy leen ci man looy leen wuyu kenn déedéet loolu loolu ci kenn ay laay loolu loolu ci kenn man na leen dellu gannaaw man na dellu gannaaw man ak sama morom man mii ak sama morom te kat te day guddi day jot rek guddi day jot rek asamaan set asamaan set ñu ne leen ñu ne leen maama Sane dem na maama Sane dem na denc nañ ko bi denc nañ ko bi to du jax ñu jax na al mawti yaati al mawti yaati wax na nan leen defar jàmmalaay defar jàmmalaay nan leen defar jàmmalaay defar jàmmalaay ñu xam fu ñu xam fu ñu toogee du suñu kër du suñu kër ya du jëma du jëma du feneen kon feneen ragal yàlla du ragal yàlla ak toroxlu ak tiit ak tiit sëriñ wax na sëriñ wax na ko léegi diggante daaw rek yéen dalal ren lu ne am na lu ne am na lu ne am na lu ne am na moom ku yàlla musal ku yàlla musal. nga ne fi. toog fi tey ba toogaat bi tey. sant yàlla nga sant yàlla moom moo ko defal. te nag te nag. fàttaliku. fàttaliku nag ni lan moo tax lan moo tax. ba sa topp it ba ca topp it. ñun taalibe yi ñun taalibe yi. di jaayanteeg bàyyi laay. ñu jaayanteeg bàyyi laay. ak Seydi ak Seydi. ndax sunu amana. ndax sunu amana. dëgg la ci noonu. dëgg la ci noonu. wala déet wala déet. toog ci dëkk. toog ci dëkk. Abdoulaye nekk fa. Abdoulaye ne fa. am ñaari weer. nga am ñaari weer. te muy doomi limaamu doomi limaamu laay yonte yàlla Isaa ibnu Maryam. nga bañ kaa seet. nga bañ kaa seet. Ousseynou Mbiroon. Ousseynou mu Maxtaar yi. bu Maxtaar ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Bachir. mu laajoon leen. ñu laajoon leen. waaye su gëm nañu yàlla. waaye nag gëm yaa rasul laaj. yaa rasul laaj.